وضاحي في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي سفر waaleykum salaam wa rahmatullah bokki jullit yi bokki taalibe yi ginnaaw bi nu jiitalee ci siyaar bi Serigne Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd Euh, di siyaare mboolem umul islam ci bis bu sell bi ñu nekk muy bisu Cheikhuna Ahmadul Xaddim bi di màggal gi euh, tey nag sunu jataay bi buñ ko gisee euh, li ko waral muy liggéey bu mag boo xam ne mi ngi bàyyi ko Italie ci jëm si ci daayira Muxaddamaatul Xidma ci teewaayu sëriñ Abdul Ahad Buso Cerno mi nga xam ne tey moo fiy ndawal sëriñ Afi Buso al ak ndawul daayira bi yëpp. Euh, liggéey boobu nag muy liggéey boo xam ne daayira Seexuna Ahmadul Xadim yi nekk Italie nga xam ne ñoom ñooy ñi fa nekkal euh, daayira bi ci waxtu liggéey bi tàmbalee rek buñ tàllalee loxo seen jëf mën a ñëw tey nag jëwriñ ji nga xam ne moo jógee Italie ñëw ñu di ko wax sëriñ Daaru Euh, ànd koog euh, sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Bàkke Touré euh, ñu ànd ñëw jébbal si liggéey bi biñ fi ñëwee tam ñoom ñoo fi teewal waa Italie yëpp ci njiital sëñ Ibrahima Ndiaye xasida online moom mi nga xam ne mooy jawriñu liggéey bi ànd koog mboolem fu ab sellil ne rek tey jàpp ci liggéey bi sëñ Daaru Touré mi tey moo leen fi teewal muy liggéey bu am solo nag boo xam ne liggéey nañ ko. ndaxte kenn ku xam na ne fi jamono tollu euh, képp ku ku liggéeyal Serigne Touba ba takk euh, lu toll ci mënoo indi ko jébbale ko ci màggal gi loolu jëf ju réeréeré la euh, duñu fàtte nag it imaam sëñ sëñ sëñ sëñ bu soobee sëñ sëñ sëñ ilimaan bu so Touba Bari ñoom itam seen jëf ñëw na ndax moom itam bokk na ci jëwriñ yi nga xam ne ñooy jëwriñu daayira bi kon xam naa dañuy gàttal kàddu yi ñu jox ko sëñ ñu jox sëñ sëñ daaru rek nga nuyoo jottali rek kàddu goo xam ne moo bàyyi ko ci mbooloo mi nekk ci itali waaye daal di wér daal mooy sant nañ leen gërëm nañ leen xam nañ seen taxawaay ndax waxtu wu ne lu daayira bi soxla rek seen jëf da ciy daal di egsi muy koor gi muy ci matériel buñ soxla ci lu mën a doon rek di seen jëf lay daal di ñëw ku xool màggal gi ni mu xatee waaye da ngeen a takk daal di ñëw indi ko jébbale si ko kon nag loolu euh, jenn jëf gën ko rëy gën ko rëy te fii moom xam naa ku fi jëf moom. war na leen a jëfal nga ko fi gënal Seexul Xadim kon nag yàlla leen Sëriñ Tuubaa fay xam naa dañ lay bàyyee kàddu gi rek. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakaatu daayira Moukhaddamatoul Khidma Touba Italie ak Touba diaspora ñu ngi ziar ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant suñu Assane Diop ñu ko waxee di ziar suñu sang bu baax bi ak sama mag ju baax jël ma ak sama xarit di ziar ñëpp di ziar waa Italie gépp di ziar uh, waa tubaa Rajo Calabria Touba Savona Touba Livorno. Touba Milano Touba Brescia Touba Bergamo Touba Cagliari tubaa Pisa ak Touba Bari ku ne ko si Assane Diop waxee ñi ko ñi ko bëggoon te xëy na suñu borom matalewu ko yàlla suñu borom àggale ëllëg ñu lim leen àggale si indi seen addiyee ci bàkki Serigne Touba ñu ngi ziar ñëpp di sant ñëpp wax dëgg yàlla lépp agsi na am nañ 1610 euros te déwén yàlla nekk ñettam ba ñeentam ngir jëmmi Serigne Touba mi tax ñuy liggéey ndax diñ ko tàmbalee amuñu woon lii yaakaar naa bu njëkk ba 500 euros amoon daaw ñu ji kon mi ngi yokk te at mu nekk yàlla ko suñu gën a yokk ñu bokk ñu ñëpp ak waa wet ndax ñi moom kenn amul seen fay wax dëgg yàlla yàlla borom bi subhanahu wa taala gën a gi ñëw kattanal ba lu ñu indi ren déwén ñu indi ñaaram nga jëmi màggal gi nga jëmi borom Tuuba di sant Assane Diop nag ndax moom lépp mooma ndax moom moo tax te ñu xam luy Moukhaddamatoul Khidma te ñu bëree bëri dañ ko réerle rek ndax fii yaakaar naa fee lépp nekk jumaay sëñ Tuubaa ji fee lépp nekk ba tax na yàlla si boom dimbali saa bu ñu yeewoo mu jox ñu li ñu fi indi ñëpp ñu bokk ko ngi jëmi Sëriñ Tuubaa jox kàddu gi nag suñu suñu kilifa suñu lépp mu àggale wax ci jërëjëf bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi mu barakaatu. ñu ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan yëpp. di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan sunu borom yàggal ko fi te ko. di leen nuyu ci turu Serigne Afia bu mi nga xam ne mooy njiitul daayira Muxaddamatul Xidma. Euh, Serigne Darou ñu ngi lay nuyu di jiital ci nuyoo bi sa kilifa gi nga àndal di sëriñ Mbacke Touré ak sa xarit bi eh, ñu ngi koy nuyu moom di la nuyu bu baax a baax di nuyu mboolem waa Italie tamit di teg nuyoo bi ci sa loxo nga tegal ko ci loxol sëriñ Ibrahima Ndiaye xasida ak mboolem silil yi nga lim nii yëpp te te nga xam ne ñoom ñooy participer ci eh, liggéey bi waaw dafa mel ne yaakaar naa ne juróom-benn dëkk wala juróom-ñaar juróom-ñaari dëkk waaw wala juróom-ñetti dëkk. waaw loolu nag xam naa ne néew na lool ak ak Italie ni ni mu toll. Eh, yàlla dogal na nag moom ñun niñ koy waxee rek toujours liggéey bi eh, du lenn kenn lépp ñëpp la lu ne ku ngi ci. yéene nañ ci ku jariñu ñun daal dañoo nekk fii nekk fi xaadim nekkal fi xaadim rasul di liggéey bëgg it ñëpp jariñu te sëriñ bi digge fii lu lu lu rëy rëy Italie it moo tax depuis 2012 wax naa ko ay yoon yoon ànd na ma ak sëñ Maamoor ñu dem ci dëkk yëpp leeral nañ liggéey bi jawrin yëpp. li ci des nag mooy mooy ku ci sëriñ bi taw feexele nga war cee bokk euh, danga ci bañu ba ñuy def tournée bi nag gisuñu woon sax suñu daaru mi gisuñu woon dafa daf cee dabe ci ba ñëw ba far yor liggéey bi doon jëwriñ ci kon loolu dafay mel ne suñ tubaab moo ciy taw feexele taw feexele nit kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax di gërëm ñëpp képp koo xam ne daal defoon nga ci sa alal tem jaar ci sëriñ daaru alal ji tey mi ngi nii jébbali nañ ko la tege ci loxol sëriñ Afiya dem ci liggéey bi ndax ñi ngi ci waajtaayu màggal gi te kenn ku nekk xam ne liggéey bu rëy moo ñuy nekk nii ngeen ko defee woon tamit ci koor ga defe ko ne ci màggal gi kon loolu ñu ngi leen ciy sant bu baax di leen ci gërëm di sant it Serigne Assane moom it ci kàddu yu rafet yi ak Pastef bi di sant it Serigne Saliou si Hikmatul ma waaw moom it euh, wax dëgg yàlla timit suñ daaru mi bu tabbee ci liggéey bi moo tax kon saa su nekk it dafay jaadu nga di ko nga di ko fàttali waaw waaw ak Serigne Mor Koumba Thiam waaw Touba Monde bi waaw suñu xaadim suñ suñ Ibrahima Jaay xasida ak suñ suñ Modou Mbaye kenn ku nekk xam na ne ñoom dañuy jàpp ci liggéey bi bu baax a baax te dañuy yaatal tamit ci luy doxal liggéey bi gis ñu doon def Milan moo ko def te ko ba murit yëpp euh, jot ci te ñu ngi ko doon def ci ndigalul sëriñ Afia suñ mbàkk mi nekk fii ci Sénégal te teewul day jël addiyaam di ko aj ci yéen muy ñëw at mu jot di borom Pastef kon daal ñu ngi leen di sant di leen gërëm liggéey bi nag liggéeyu sëriñ Tuubaa moom mi nga xam ne mooy borom liggéey bi te wax ne ku ma liggéeyal ma fay la Euh, ku ma lebal ker ma fay la guddi ku ma defal loo man ma defal la loo mënut waaw ku ma defal loo mënut ma defal la lu la jomb te bu amee ngor nag war koo delloo delloo ko njukkal wax nabaxtukum maan ala kaddin bada li xabla an araridal mu abada ma ngi leen di yee ci coono bu ma daj njëkk may am ngërëm li nga xam ne dafa sax xururul wara euh, nga waxee di sax xusuur ya xalat wala ahulaa nii tafarraqat ngir lan li mat xi lesi anhul madihu qasiru génne nañ ma samay kër tàqale ma ak sama njaboot te jëmmi boppam ak njabootam taxuñ ko woon a jóg ngir xeete lañu rek moo ko taxoon a jóg kon ñun mënuñ koo fay kon war nañ koo delloo njukkal ci luy sàmm barabam bii ci luy dëgëral darabam bii kon yàlla ñu ko yàlla fayal waaw ñu ngi nuyu it waa Suwed fokki liggéey bi sëñ Njaw Baay Fall moom it di yónnee addiyam saa su nekk di jëwrin kon bu fee sëñ Fallou Gueye mi teewee yem ci jataay bi ñu ngi leen di nuyu ñoom it di leen sant di leen gërëm waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu الصباح في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي صفر